asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo gu sell gu tedd jëmale ko ci sunu kilifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla defal ko wér di ko jaarale ci capital ñaan yàlla may ko wér ci biir ak ci biti waajalit loo xam ne li fa tabarakallah du nuyu Sénégal gépp muy Grand concert boo xam ne bii dañ ko war a def Tivaouane le le vingt cinq décembre à terre préfecture ñu war ko def nag ak koo xam ne kii kenn yombu koo jël ci islam bi teg ko fenn kilifa toog mu def animation muy Seyda Bintou Thiam bi nga xam ni moo yore firqa Ahmadiya te yàlla dogal fa tabarakallah kuy kuy borom. Seyid si Ahmed Tidiane si yaakaar naa ne ku yàgg a 6 pour cent la course fekkee nga ko bëggul benn bi ñaare Seyda Binta Thiam yëkkati ay xasida way ko ba mu yàgg Serigne Cheikh commencé gàmmam ci guddi yonent loolu fekkee nañ ko bëggul benn bi ñaare kon kooku su yàlla dogalee Serigne Moustapha toogaat fi mu toog ci Tiwaawan ñëw ñu defal ko fi sargal boo xam ne bii àddina bi yëpp la yëm mu ñëw ànd ko ak ñi nga xam ne ñoo affaire arabe yi fi nekk yëpp ñoom ñoo def ko fi kanamam Serigne Moustapha mu bëcc suñu demee ba war koo andiwaat Tiwaawan dafay laaj nañ ñu yaatal ko gii yoon nag dañu wax ni moo mboolem Sénégal képp koo xam yaa ngi dégg suñu bi ak bitim réew ñu ngi lay ñaan la vingt cinq décembre fi nga xam ne fi lañ jëm muy terrain préfecture nga xam ne fa la ñuy fas yéene daanal seen bind càmm yaakaar naa ne ku toog ba vingt heures soo moytu doon place beneen bi ci des mooy biir yi commencé nañu di ko laaj fenn fu nekk ci euh, euh, quartier yi am na ñu ko yore di ko jaay. ngir yàlla bis bi dafay nit ñi dañ ko xaw yàttal bi ngir yàlla sargal bi fi jaaroon te yàlla dogal fa tabarakallah nit ñi doyalul moo tax nag ñu ngi woo ñëpp incha allah le vingt cinq décembre pour ñu teew si loolu bii nag mu ngi commencé ci cinquante mille francs yàlla dogal na am na ñoo xam ne ñi ci ñoom la jëm yeneen billets yi am na billet vingt cinq mille am na billet dix am na cinq mille am na deux mille francs ngir yàlla kenn ku ci nekk ñu fekk la fa sa situation toll sa am am toll ci ñu ñaan incha allah biir yooyu kenn koo xam ne mu ngi dem seew nga xam ne sa participation la ci guddi gi waaye ñu def appel nag bu général jëmale ko mboolem ci région de Thiès Cap-Vert ak ñi nga xam ne ñoo jëm si ci côté euh, euh, communes yi à partir du département Tivaouane commune yëpp ñu ngi leen di woo commune Ngaye rawatina ak fi nga xam ne tamit mooy commune euh, Mboro commune Darou Khoudoss commune Taïba Ndiaye bàyyiwuñu kenn ñoom ñoom ñu ngi leen di woo. ngir yalla ak bis bi ak ni mu toll ñu fasiyene nak mbolam ñepp ñëpp teel a ñuy wax na père yi mère yi série féminine la série de cadet ñëpp kenn ku ci nek ci la nga tolloon ci biir automatiquement nañ ko dal di jënd ndax bis ko laaj ñi nga xamni ñoko organiser nak nga xamni fa tabarakallah ci turu mam sa capitaine mom lañ ko sekkal war ko def nga xamni moy mc MC ci Tivaouane gep ak département bi ñom ñëpp ñu koy ngir yàlla fas yéene liggéey bi nga xam ne moom la kilifa gi chargé wu ci Tiwaawan ñu wan ko ne ñu ngi ci sa wet te ñaan nañu yàlla foo taxaw ñu taxaw fa te lépp loolu ñu sant daañu ko def loolu na moo tax xale yi am initiative pour fas yéene ko def mag ñi encadré leen ñuy ñaan na père yi maire yi bii ñoo ci jik bépp père bépp maire bu ne ci daayira bi laa aju yow kenn pardonné wu la pour nga jënd billet ñoom ñëpp dañu war a jënd bu dee série féminine dañu war a jënd ay billet su dee defee ñu bàyyi ko xel noonu ñaan yàlla tamit bés bi yàlla na yàlla may ñu réussite bu mus am bi yàlla na ci bokk ci barke kilifa gi su ko defee fa tabarakallahu yi yóbbu nañ ko à travers Sénégal gépp kon ku ci nekk ci parrainage yi yóbbu nañ ko ba ci yow nga kontaan ci bég ci wane ni leen man ngeen ko defal te loolu nag la ñuy yaakaare nit loolu la ñuy doyu nit dafa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi fas yéene parrainage yooyu waajal nañu fañ leen di dalal ñoom ñëpp ñu ñëw egsi egsi barab ba teewe ko ba guddi gi jeex ñu soog di dellu rawatina nag ñi nga xam ne fa tabarakallahu mooy député yi ak ñi nga xam ne ñooy maire yi fa tabarakallahu ak nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi lay woo ci bis bi pour nga taxaw boo defee loolu nañ ko gën a bàyyi xel waaye ñu xamal leen ni suñu mbokki waa Kër Maam Borom Touba yi waa Njaasaan waa Laayeen ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Tiwaawan ak ñi nga xam ne tamit mooy suñu mbokki Ñaseen ñi Ñaseen ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii ñoom ñëpp ñu leen di woo ndax Seyda mboolem mag ñi kenn ku ci nekk fekk na ca xasida ya na woy mu jukka ci ci boo xam ne bi ci yonent bi nga ko jaareel mu wàññi ko ñëw wàññi ko ak boole ko instrument woy ko ba xoli ñëpp mën cee fekk loolu la dafa nekk loo xam ne kenn ku ne sa lu nay nekk ñuy ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw kër Cheikh Awa Balla kër Cheikh Marouba Gueye si nga xam ne mooy euh, sañ ci pir ñuy ñaan ñëpp nañu mobilisé wu ñëw waatu waawal nag li ñu leen di ñaan mooy ñoom ñu yëg ni mbir mi balaa dara xew seen la nañu fexe ba bii yëpp jeex tàkk ah rawatina nag ki nga xam ni mooy euh, maire de la ville mooy dem Diop Sy ñu ni ko wan ni ko taxawaay bii nga xam tey moom la ñuy liggéey ci Tivaouane ngir yàlla laaj lu feeñal liggéeyu man ñi loolu moo ko andi ci Tivaouane loolu lay wut si ci Tivaouane kon suñu collaboration ak moom man nañ ni ko lal mooy diine li ko lal mooy tarixa Seydi Hadji Malick li ko lal mooy kër Seydi Hadji Malick kon nag fa tabaaraka laa ñu ngi koy woo di woo entourage bi yëpp ñu jàpp ci kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne

من والرهن والتدبير والإعلام